mu mel nii ñu ngi nekkoon ak yéen ci téere bu màgg bii di alquranul karim di waxi yàlla su borom subhanahu wa taala doon raam ak yéen ba àgg ci saaru mulki saaru mulki nag boo ko doon seet dangay wax ne boo dalee fooratul faatiha teg baqara di kontu ba ci mulki yaa ngi am juróom benn fukki saar ak juróom ñaar saaru mulki Makka la saari mulki fanweeri aaya la mbokk julli di saar wi saaru bari njëriñ la lu tax mu bari njariñ mooy yonent bi moo ne waddatu ana tabaarakal mulki fii qalbi kulli mu'minin yonent bi nee na ngéeji woon naa jullit bu ne mokkal saar kon nag bu ñu ci ci xeex yonent bi mu ne ngéeji woon naa jullit mulki Euh, borom xam-xam nee nañ wattu sama ay daan saar wi daañ ko tuddee alwaaqiya waaqiya nag li muy firi mooy laay fegal lépp luy lor kon ndeke boo bëggee yàlla fegal fegal la lépp luy lor rek del jàng suratul mulk saar wi dañ ko tuddee itam almunjiya saar woo xam ne day musal day musal nit ndeke saaru mulki boo koy jàng yàlla dalay lay muccal ci sa safaraaw adduna muccal la ci safaraaw alaaxira waaye wal maaniha saar wi dañ ko tuddee al maanih nga xam ne daf lay tere lépp lu bon saar wi boo koy jàng dana dema dem sax ba dootoo mën a mooy yàlla far ndax maanix la daf lay jajj ñu ne lu tax ñu tuddee ko al yéen koy gis de mu ne li annaha taqi saahibuha wa tunjihi min asaabil qabri wal qiyaamati ndax ñu ne saar wi de ku koy faral di ko jàng dafay musal boroom da koy sellal da koy musal ci mbugalam bàmmeel waaye da koy mbugali musal ci mbugalam alaaxira wattu sama aydan al mujaadala saar yu bokk na ci turam yi daañ ko tuddee mujjaadala mujjaadala mooy firi lan mooy dàgg sante xuloo saar la woo xam ne bu yowmal xiyaamee day sol mbubbu avocat waaw sol seen kaala yooyu taxaw ci kanam yàlla borom bi subhanahu wa di wax ak moom li annaha tujaadilu han saahibiha fil qabri saar wi ki koy jàng bés bu ko nit ñi ñëwee yoo ko ci biir bàmmeel buñ ne ko yoo ci biir bàmmeel saar wi day mujj soppeeku yàlla bind jëmmi malaaka joo xam ne ca doon jàng saar wi mu daal toog nekk ci biir bàmmeelam du ko wéttali sol mu bu kaw awakaana pour xaar yi ndax nit bu nekkee ci biir ba biir bàmmeelam ñaar danañ fa ñëw kenn ka nëkkiir la tudd kenn ka tudd mën na kër nakiir mooy ku xamul kenn mun na kër mooy ku kenn xamul ñaar ñoo ñoo fay dikk dañoo ñànga ñànga ñànga ba seen ñàngaay kenn xamul nuñ mel képp kuy jàng sóoratul mulki mbaa nga mokkal ko bés bu ñu dugalee ci sa biir bàmmeel ba nakiir ak mun na kër ñëw jàkkarloo yow bëgg a wax ak yow saar yu daal di sol mbubu awakaam taxaw jàkkarloo ñoom tontul la kooku tax ñu tuddee saar yu almujaadala ah mbokk jullit yi kon mulki jar naa jàng di warada fi fadaliha ahadisun kasira saar wii nga yu bëree bëree bëri yoo xam ne moo ci rotte yooye yépp yonti yàlla Muhammad moo ko nettalil boppam mina qawluhu sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci yonent bi moo nettali mu ne inna suuratan min kitaabillahi maa hiya ilaa salaasuuna aaya shafaat li rajulin yawmal qiyaama wa axrajathu min an naari wa adqalahu al janna yont yàlla Muhammad nee na yont taalibe yi saar wii képp koo xam ne yaa ngi koy jàng mu ne ah, yonent bi dafa wax ne am na ci biir alquran am na ci biir benn saar woo xam ne saaroo boo ko compté fanweeri aaya dong la xëpp ko waaye nee na fanweeru aay yooyu képp ku koy jàng li rajulin yowmal qiyaama mu saar wi day ramm nit ki yowmal qiyaama waaw kon saar am solo waaye du ci xem waaye waa naari saar wi mu ne ki koy jàng yonent bi nee na da koy génne safara même buñ dugaloon la safara saar wi dana ñëw fekk la safara génnee la waa saar wi jël la dugal la aljanna kon nag nañ fexe ñun buñ fi bàyyeekoo tey balaa koor gee jeex ñun ñëpp ñu mokkal euh, dégg nga euh, sóoratul mulki ndax fanweeri aaya la bés bu ne boo jëloon aaya rek balaa weer wee dem mu mokk waaw saar yoo min haa ñu ne bañ seetee saar wi yonent bi wax fanweeri aaya mën a waxee sóoratu tabaaraka mooy tabaaraka la si biir diir mulk ba mu jeex wa min haa bokk na ci nganeelu saar wi isaa wuddihal mayitu fi qabrihi yu'ti min ah, qibali rijlayhi fa taqulu rijlaahu laysa lakum alayhi sabilun li annahu kaana yaquumu bi suratil malik mulki mu ne saar wii su fekkee nit dee bañ suul ko ci biir bàmmeelam lépp lu nar a dikkal nit ki ci biir bàmmeelam di ñëwee ca tànk ya di ñëwee ca tànk ya saar yu day sol awakaam taxaw na ko kii kenn du dikkee moom ci tànkam ndax bu taxawaan di julli sax daf daan jullee sóoratu mulki waaw mu ne su ma yóoti min qibali rahsihi fa yaqulu lisaanuhu laysa lakum alayhi sabilun li annahu kaana yaqra'u bii sóoratul mulki mu ne képp koo xam ne daan na jàng saar wii di suratul mulki boo deexee bañ la ci sa biir bàmmeel lépp loo xam ne dafa nar a ñëw ci biir bàmmeel bi indi la ay jafe-jafe te jaaree ci sa wetu bopp bi sa làmme yu mooy def bërët jog wax moom ne ko kii mënoo ci moom dara ndax da doon jàng sóoratul mulki ah kon suratul mulki sëñ bi bari njariñ njëriñ suma xaalam mu ne hiya moom almaaniatu mooy saar wi nga xam ne mooy maaniha dafay tere min xasaabillaahi ci mbugalam safara saar bi day tere nit ci mbugalam safara wayya fi tawraat boo demee ci surut ci tawraat ba nga xam ne moom lañ joxoon yonent yàlla Muusa ñu ne ñën ko fa tuddee ba tey suratul mulk man qaraa biha fi laylatin faqad aksara wa atnaba allahu akbar ñu ne képp koo xam ne guddi jot na defuloo dara julliwuloo wirdawuloo sikaruloo defuloo dara waaye nga jàng benn suratul mulki dafa mel ni def nga li ñuy def lépp maanaam nekk nga nit koo xam ne def nga lu bëri yi woo bëree bëree bëri woo xam ne kenn xamul nuñ toll ndax at na ba la ñuy wax at na ba mooy kuy wax rek di wax rek tëx ba mi ngi mel ni ngay jaamu yàlla di jaamu yàlla rek tëx ba wala ngay siikar di siikar rek tëx ku jàng suratul mulki daa mel ne noonu lañ noonu nga def ci guddi gi mbokk julli yuy saar wi kat jar naa góorgóorlu hadis ba ma waxoon a ngi nii minal xabar wa minha bokk na ci ngëneelu saar wi yont yàlla maam ma nee na waddattu njiiji woon naa am na tabaarakal mulki tabaaraka saar woo ñu tuddee tabaaraka di ko tuddee mulki njiiji woon naa fi qalbi kulli mu'minin mu nekk ci xolob ku gëm yàlla ku ne yont yàlla maam ma nee na njiiji woon naa loolu loolu sëñ bi bari na di loolu mooy yi nga xam ne ñëw na ci jalaalay ni borom xam-xam yi wax ko waaye boo demee ca boroom xam-xam yaag ña nga xam ne ñoom lañuy ñuy tuddee al mujarabaatu sahih nga xam ne ñoom ñoo amal seen bopp seeni soxla wala am seeni jafe-jafe ñëw jabu ci saar wi jaar ci saar wi rek yàlla fajal la seen soxla bokk na ci man qara'aha qabla nawmi lam yasal fii amaanin hatta yasbah saar wi nee nañ képp koo xam ne guddi danga nga jàng balaa ngay nelaw nanga nga yëg ne am nga sécurité ci guddi gi amul dara lu la a lor ci guddi gi fekk ba set wa fi amaani yowmal qiyaama nee na yowmal qiyaama itam da am amaana mooy yowmal qiyaama da am sécurité dafa am benn jafe-jafe hatta yadxulul janna ba kere ngay duggaa àjjana saar la woo xam ne wax nañ ne. képp man man xafisaha kaanat aniso fil qabri ne nañ saar wi képp koo mokkal mooy doon sa wéttal ci sa biir ba ab bàmmel wax nañ ne man qara'aha ala maytin sax de xafafa laa waxanhu maa woo fii nit kuy bëgg a dee mbaa mu dee nga jàngal ko soratu euh, mulki wax nañ ne yàlla dana xoyofal mbugalam ci biir bàmmel aha moo tax nag def rekk def rek jéem a jàng rek ñun ñii ñëpp kuñ ci waxoon tey boo demoon tey grade muski ñu leemal la enwala ba fukki junne tey léegi tey yoon wi xat te caam loolu nag ngëm moo ko yóbbu ku mel ni doomu aadama te loolu nag doomu aadama rek mën na la koy wax nga gëm ko te kii ki ko wax yàlla borom bi subhaanahu wa moo wax saar wi waaye yonent yàlla Muhammad moo nett li nett lii kon nag fa naa naa fi mutanaafisoona nañ ci njëkkante ñun ñëpp ñu dem saar wi boo doon seet ay ay kalimaam mat na trois cent trente-sept ñetti téeméeri baat yu tegal fanweeri baat ak juróom-ñaari baat moo nekk ci saar wi ay xarafam ñaata xaraf la mille trois cent seize xaraf moom la am junne xaraf yu tegal ñetti téeméeri xaraf ak fukki xaraf ak juróom benn xaraf moom la saar wi am waaw bismillahi rahmani rahim tabaraka màgg na tabaraka rëy na tabaraka ëpp na fuuf moom yàlla li nga koy dendaleet ndax jagewu ko ëpp na ko yàlla foo ko tollale rek passé na fa fa moo tax léegi-léeg booy wax ci màggaayu yàlla ngay wax bi xaddari xooli naasi maanaam lu tolloo xeli nit ñi waaye gis nga baat bi tafaala tabaaraka xëpp na moom yàlla màgg na kan allazi buur bi nga xam ne laa wax bi yadihi nekk na ci loxoom almulku nguur buur bi nga xam ne ci loxoom nguur ci loxoom la nekk waaw nguur ci loxol yàlla la nekk moo tax may wax gune yi léegi-léeg bu maay firi ma ne bismillahi maa ngi tàmbalee ci turu yàlla léegi-léeg ñoom ñu ne buur ma ne buur yàlla foo koy xable léegi-léeg mu xam ñu ko xabal waaye waaye yàlla gi ilaahiya gi yàlla du ko xable mukk moom rek moo ko moo moo ko làmbaayoo tabaaraka màgg na lëri buur bi nga xam ne bi yadihi nekk na ci loxoom al mulku nguur te xam nga boo demee ci mag ñi saar yi dañ cee falee buur gaa yi politiciens yi waaw boo demee ci mag ñi ci seen secret yi waaw dañ ca fekk ñu caay fal buur mulk mulk yi nekk ci alquran waaw politiciens yi dañ leen cee dañ leen cee sang de waaw nga ko gën rek def ba lépp waa ji ne woon waa ji doo xam lu tax ñu lay bëgg waaw seen càngat yi bu ñu la ko sangee doo xam lu tax nit ñi di la bëgg waaw dañuy xëy rek samp samp la ak buur bokk na ci tekkeree mag ña yooyu nag moom xam naa duñ ko wax ci fii waaye dana mag ñi danañ koy def tabaaraka màgg na lëri yàlla mi nga xam ne bi yeddi nekk na ci loxoom la wax al nguur nguur moo ko mbu moo ko moom moo tax kum ko abal su ko neexee nangu ko tansiyool mulka mi man tasaaw waaye wa tuhissu man tasaaw ndax bi yeddil xayri ndax ci loxoom la yiw nekk waxoo moom yàlla laa wax xadiirun ku àttan la ku man la ala kulli ci lu mu doon boo ne xadiirun ku xattan la ala kulli ci bépp mbir xattan na ko waaye xadiirun ku man la ala kulli ci lépp la man xam nga maa ngi waxtaan fii mane ne buy waxee ne yàlla léegi lii buñ ko waxee ci amul xel walla xamul lan mooy yàlla day wax na ah yàlla est-ce mën na loolu ñu suul nit mu fay dekkal nangama nangama nangam ma man-man yàlla ëpp na loolu joxe naa ci exemple yu baree baree bëri man a seetal yàlla rek ngay gis asamaan si amul géej amul dara asamaan si boo téenee doo gis benn géej mu xëy rek na na taw mu tawa tawa tawa tawa tawa tawa taw ba nit ñi ñépp am problème ci ndox kooku lu mu la wax ne la mën naa ko war nga ko gëm hmm? ñu ne déetee waay xar mi dem wuti ca xàll ba lekk fa ñax ñëw ci kër gi naan ndox ñax mooma ak ndox ma ma dem ci biir yaram fekk fa deret ak yàpp yàlla nee na ma dem miin bay ni dam mi wa farsin ma génn ca labanan xaalisan su ma ne leen mën naa lu ne war nga ko nangu xam nga du may def xar mi day dem ci xàll ba wëtti lekk fa lu ñuy tuddee ñax ñëw ci kër gi naan fi lu ñuy tuddee ndox mu dem ci biir fekk fa deret ak yax yàlla nee na ci diggante deret ji diggante yax yi diggante ñax mi diggante meew ndox mi ma génnee ci meew mu neex moo xam ne danga koy def ci sa cere gi di ko ooroo jalla jalaaluhu wa hassa kamaaluhu waa ki wax ki man lii bu la waxee na mën naa leen doo ko nangu hmm? ah doo ko nangu ma ne ci exemple yi ba tey boo demoon ci ndox mii tànqal léegi léegi léegi ci rëbëni bi nga teg nga xool ko ci sa bët yi doo gis dara nga dem ci docteur bi mu jël appareil bi muy seetee dëpp ko ci biir ndox mi nga gis ci ndox mi ay lingaañ yoo xam ne yow boo moytu dootoo ñeme naa ndox mi ki la wax ne ki ci def loolu su la waxee lu mu la wax ne la mën naa ko rek bay boo nangu ko ne ko gëm naa ko ngoog yaakaar naa loolu doo doy na tabaaraka màgg na laa wax lësi yàlla mi nga xam ne biye diyi nekk na ci loxoom al mulku nguur waxuwa te moom xadiirun ko attan la ala kulli shay'in bépp mbir koo xamut kooku ci may wax noonu mbër moom ponkal moom boo ko xamut lësi <laughs> mooy buur bi nga xam ne laa wax xalaka moo bind almawta dee laa wax moo bind dee xam nga bokk na ci man-manu yàlla bi ma doon wax sànq sa xarit di sa wóllëre daan ànd yow di dem ci jàkka ja di daan ànd yow dem ci football ba ànd yow dem ci làmb ja fu ngeen ànd dem mu xëy na lëcc ñi génn ruu gi du mën a dox du mën a xool bu daan dox ci ko suuf du nongi nongi lu ko lu ko laal mu mu faxas soo jegee sax mu ne la yaa ngi may fatt fatt fatt tey weñ yaa ngay dugg ci biir gimiñ nga du ko mën a dàq yoo yaa ngay dugg ci biir bët yi du ko mën a dàq tey dañ koy yëkkati di ko jagat jagati dañ koy yóbbu dugal ko ci am mborgo di ko defet ma ne kilo la wax ne la mën naa lii mbokk gilit bi lu mu la waxoon nga ko gëm doomaa aadama xamul jom rek xam nga doomu aadama xamul jom Ibou Sakho da daan wax ne nga dem suul sab xarit mu yedda jabar ja yedda yedda yedda ko ja jeex nga takk sa so nga takk soxna sax sa soxna sa xarit ngoon jot nga rey am xar tàllal der ba julli ci gexe <laughs> fanaanoog soxna sa ci guddi gi mu ne waroo nelaw ba yàndoor de <laughs> ne waroo nelaw ba yàndoor de <laughs> waaye ñun fa ñu nelaw ba yàndoor ataaya fi café fi lu dañuy dugg ci sa xarit bi moo dee nga ñëw takk soxnaam ak égal war nga xam ne yow danga nga dee rayati xar xar mi dafa dee nga lekk yàpp lu dee hmm? jël derba julli ci gee julli ci kaw derab lu dee yow li la wër yépp dee ba pare yow yëgaloo la ko sa yaram sax dafa dafa amul jom de Mm-hmm. sama classe bi bokk sama classe bi xalaqa moo bind almawta dee laa wax wala xayaata ak dund boo demee nag boroom xam-xam yi coonoñ ci lu bari mu ngeen seetee ci suuf xalaq allazi xalaqal mawta wal xayaat ixtalafa fil mawti wal xayaat borom xam-xam yi wuute nañ ci dund ak dee fa hukkiyaan ibn abbas wal kalabi wal muqaatil ay borom xam-xam lañ ibnu abbas mooy abdullah ibnu abbas ak këlëbi ak muqaatil ne nañ annal mawta wal hayaata jismaani ñu ne dund ak dee ñaari jëmm lañ ñaari jëmm yu dox lañ ñu ngi ci biir dëkk bi di dox dund mu ngi dox dee bi ngi dox fal mawtu dee nag fii hayati kapsin am laha laa yamuru bi say in wala yajidu riihu ilaa maat loolu tax mu garaaw moom mu ne dee jëmm joo xam ne dafa mel ni menn xar kuy mu mag mu rafet weex tàll mu ne xam xet goo xam ne xet ga masha Allah xet ga dafa mën a jolli lool mu ne lépp lu romb xet ga kañ la keroog da nga dee xam naa léeg-léeg gis oto yooyu noonu sarse oto ba sorse bay fees ba moytu fa lay romb rek ñu dem rek accident dee ci yoon yi waaw xëy tàggo say wuy jur tàggu lépp ndekk fa leen romb rek bu tuwaajaa fa jaar rek hmm? ilaa maat wa xalaqal xayaata ala surati farisin unsa balqa wa hiya allati kaana jibrilu alayhi salaatu salaam wal anbiyaau alayhimu salaam yarkabuunaha xutuwatuhaa maddal basari fawqal ximaari wa doonal baxli mu ne dund nag dund moom it benn jëmm la joo xam ne boo ko doon xool xam nga nu melam fasu fasu naaru góor fasu naar fas fasu jigéen fasu rafet wu jigéen woo xam ne dafa siwe balqa mooy siwe mu ne jibril moom la doon war fasu dund moom la doon war mu ne fasu ñi tuddee fasu dund mu ne xëttu watuwaa madal basar mu ne jeego bi day gaawee ni bët bi fu bët ba tegee rek jeego ba dana fa tege mu ne fasoo soo ko xamut faw xal ximaar yi moo gétte mbaam ci guddaay waaye nag wa doonal baax li àggul ci barkelle waaye nag laa tamuru bi sëy in wala yëjidu riiha ilaa xaya moom it lu romb mu war a dund day dund xatam ji lu lu xeñ loola dana dund ñu ne loolu tax sa way yëllati ak sa saamiri yu min asaraha turaban fa alqaaha xalal hijli fa xayaa ala hasa loolu taxoon saamiri yu Moussa saamiri yu lébu rëy wow ñëw ci alquran lébu rëy la ñëw ci alquran yàlla nee na samay mbir daal ko xeboo teej ndax naa manee lu ne moo tax waaw dafa am benn Moussa bu ñu tuddee Moussa ci ko yar na la tudd mu xëy nekk ab yónnent nga ne yàlla lu tax firxaw na yar nit mu nekk yoru mu ne maa ko tey maa tey yow ci man xam koo xam ne saamiri yu lañ koy tuddee muy Moussa saamiri yu Moussa firxaw na Moussa saamiri yu Moussa saamiri yu Jibril moo ko yar doomi njaalo la boo di a gaa yi di ragal doomi njaalo mooy loolu doomu njaalo loo ko defet defet pour mu baax du yomb mu njaaloo la jibril moo ko yar keroog bi ko yaayam ëmbee te ragal ne su amee doom ay bokkam indil ko jafe-jafe mooy li xew Sénat da ngay gis ndakaaru mu fi xew mu yóbbu ko yóbbu ba ca àll ba ba ci yónnee doon xeer mu amee fa doom jël xale ba raxas ba mu seet leen ko teg ko foofu yàlla na jibril xale bale bëgguma mu dee te yàlla kum bëggul nga dee doo dee bëgguma mu dee de demal ma toppatool ma jibril ñëw fekk xale ba fam ne di ko nàmpal di ko toppatoo ba xale ba màgg xale ba ba muy màgg bi mu commencé mat waxambaane ba am fukki at ak lu teg bés jot jibril dafa ñëw war fas wii fas yu mel laay nettali moo tax ma indi ci xësa boobu waaye fii du palaasam war fas wii fas wii la jibril war nga xam ne lu romb mu dund fa mu dóor tànkam bi mu gis ne jibril buy dikk fu fu fas yu jaar diggu noor mu ngay sax ñax garab gum laal ko ko seq lum laal loolu màgg ba fas yu tënk ba mu dëggee tànk ba di dem mu gaaw njëkkante tibb tànk ba fa mu ko defoon tibb tànk ba ba mu tibbee tànk ba moo tax ba mu delloo Moussa Samiri yu mu yonent yàlla Moussa ba mu xamee rànd yu ak boroomam <laughs> foo ko yàlla yeddee fa yàlla yeddee xam nga yàlla xam na fu mu ko yeddee yedd yu méttee méttee yàlla daf ko wax ne ko am ak moom rànd yu mu war koo jox tawraat Moussa dafa yàkkamti rendi bi yàkkamte dem ci yàlla ba xale ba xëy xaaru cere daa xëy xaw yoon dem mu dem ba àgg yàlla na ko ana nit ñi mu ne ko dama leen fa bàyyi mu ne lu tax nga bàyyi leen fa mu ne ko dafa dara acca daf paatal kon rendi boobu mu daje woon ak yàlla balaa muy dikk mu war am ñeent fukki fan ca rendi ba balaa muy dikk Moussa doxee na ko gannaaw ba ñëw ba dem waxtaan ak waa dëkk ba ne leen Moussa mii ngeen ay jaamu ak Moussa mii ngeen topp ak yàllaam ji du dara ndax Moussa mënu leen a wan yàllaam ji mënu leen koo gis te ju leen jëriñ dara man nag mën naa leen a indi yàlla joo xam ne da ngeen koy gis jàkkaarloo moom ñu ne ko lan mu ne dajale leen ma seen na wurus yu bari ak or bi rek ñoo indil ko wurus yu ak or bi mu géey ci benn yëkk ba mu liggéeyee yëkk wa loola mu yëkkati woon ca tànkab Jibril bi nga xam ne lépp lu mu laal loola dund mu jël loola dugal ko ci biir yëkk wa commencé bind mu ne lii mooy seen yàlla ji mooy yàllaay Muusaa kon nag moo tax ñu ne la fas wii day dund lu ko jege dund waaye lu ko xañ itam dund moo tax da nga dégg eh, ñi yàlla may ma maawul xayaat xam naa kii moo leen mos mosal ca loro ma ku mel ni yonent yàlla Iisa mel ni yonent yàlla Iisa nga xam ne moom maawul xayaat la la naan ku mel ni Jaafar Saadiq nga xam ne moom maawul xayaat lay jëfandikoo ma jafur ak jafur saadi xam nga du deet ñooy nga xam ne dañoo dee ba pare nekk ci kaw suuf yonent yàlla Iisaa wax nañ ne dana wàccaat ku mel ni yonent yàlla Idris bëri na lool ñu dem tabaaraka màgg na alasi buur bi nga xam ne bi yeddi nekk na ci loxo al mulku nguur waxoo moom xadirun ko attal na ala kulli ci bépp mbir allazi mooy buur bi nga xam ne xalaq bind na al mawta dee wala hayaata mu dund mu bind itam li nga xam ne mooy dund lu tax buur nee na li yabluwakum pour mu nattu leen ayukum ana kan ci yéen ahsanu moo gën a rafet amalan ci jëf laa wax ana kan moo gën a rafet jëf yàlla mu ne li tax mu indi dund ak dee du dara pour mu xam ki war a def lu baax rek kii def lu baax ak ko du def lu baax mu rëdd yoon wii ne yoon wii moo baax rëdd yoon wii ne yoon wii moo bon ne leen nag acca dem leen seet leen ba xam moom ngaa jàng ca saari suuf yi mu ne ni wa hadaynahunna jadayni falaqtaamal xaqabata wa ma adraka xaq ba ñu ne ko mooy lan mu ne fa kur raqabatin awit xaamun fii yawmin zi masqaba soo fa demee nag yettiiman saama qarabatin aw miskinan zaama tadwa suma kaana mina lazina amanu wa tawaasaw bi sabri wa tawaasaw bil mara ulaika ashaabul maymana waaye nag wala sina kafaru bi ayatina hum ashaabul masamati loolu mooy deuxième deuxième kuréel bi ashaabul ngoog li yabluwakum pour ma natt leen ayukumu ana ahsanu moo gën rafet amalan ci jëf waxoo moom yàlla alxasiisu mooy ki not ci nguur laa wax alxafóoru mooy jéggal bàkkaari kaka ba pare jéggalu ko bàkkaari kenn xam ne da ko tooñ ba pare jéggalu ko soo tooñee yàlla jéggalu ko rek mu jéggal la waaw allazi mooy buur bi na xam ne xalaqa bind na laa wax sabaxa samawaati juróom-ñaari asamaan yoo xam ne tibaaxan dafa teglante waaye taqaloo wut de waaw dafa tegante nag dangay romb bii jàll bii waaye nag tegan taqaloo ko yàlla bind na juróom-ñaari asmaan yoo xam ne yàlla nee na tibbaax la tibbaax tibbaax mooy dafa teg bii teg beneen waaye nag seen diggante benn bu ne man nag juróomi téeméeri xat boo ko doon dox nit bu ko doon dox juróomi téeméeri xat la ko doon dox luy naaw weer la koy do naaw doog a asamaan bii tey fi ne bi luy naaw bu doon naaw jëm asamaan bi balaa muy xàgg dana naaw weer weer wu mat doog a xàgg moo tax kenn mënu fa dem asamaan sax kenn mënu fa dem waaw a ah, xanaa kooku wolof yi di tuddee njool màkk xam naa loolu tax ñoo ñu tuddee ko njool màkk ndax dafa njoolee njoolee ba xam ne fa mën a xàgg kenn mënu fa xàgg mu yoon yàlla moom sallallahu alayhi wa waaw moom mooy njool <laughs> màkka turu am solo la ndeysaan asamaan yaa ngoog ci baax la ko yàlla def juróom ñaari asamaan asamaan bu njëkk bi mu ngi tudd rafiix melokaanam duqaan la muy sëxën sëxën nag dafa bokk ci safaafu law ni moom ndoxo yem waaw asamaan bii ngay séen melokaanu sëxër la yore sëxër sii nii di génnee ci kii waaw sëxët nag moom ndox ñooyam ñoom safaaful law ni la loolu nag boo jàngee wuloo wal asiya yaakaar naa da nga ko xam safaafu law ni mooy loo xam ne melo wi xamul melokaan wuñ ko mën a tuddal danga koy séen nii yaakaar ne dafa weex waaye fekk weexut léegi-léeg nga dégg wolof sax di wax ne ndox mi da ndox mu ñuul mi jox ci ndox mu ñuul mi dafa jàpp ne dafa ñuul ndax bi mu duggee ci biir ndox mi bari te wax naa la ñaari li ci ëpp cosaan lëndëm la day mel ni dafa lëndëm nga foog ne fa ñuul waaye boo sottee rek xam ne ñuulut ndox boo sottee da xam ne ndox mi ñuulut waaye li lay xamal ne ndox nag safaafu law ni la mooy ndox mi soo ko sottee ci kaas bu ñuul ndox mi ñuul soo ko sottee ci kaas bu xonq ndox mi xonq soo ko sottee ci kaas bu bula mu bula kon safaafu law ni la mu ne asamaan bii nag noonu la ko yàlla bindee asamaanu ñaareem ñaareel turam mi ngi tudd fay duum law nuhaa nuhaas ñu ngi ko liggéey ci matière bu ñu tuddee përëm asamaanu ñetteel mi ngi tudd maaruumun law noxaa nuuru ñu ko liggéey ci melokaanu leer ci lañ ko bi liggéey ñeenteelu asamaan mi ngi tudd arfaluun melokaanam ñu ngi ko liggéey ci fidda xaalis asamaanu juróomeel mi ngi tudd xay foofun law noxaa saxab ñu ngi ko liggéey ci wurus melokaanu wurus la asamaanu juróom-benneel mi turam mi ngi tudd arusun mooy turam melokaanam yaquutatul xadara ci lañ ko bind asaka asamaanu juróom-ñaareel ci la asamaan yi yem xajj maa la tudd melokaanam ñu ngi ko tuddee ci duratu bayda lii nag yàlla bind na ko juróom-ñaar te xemu fa asamaan si ci kaw xemut foofu de nga doog a dem sidratul muntaha muntaha boo rombee sidratul muntaha dooga dem fa ñu tuddee kursiyu dem xaras li yépp yàlla ko bind mu nekk ay pays yu nekk ci kaw asamaan mata alladi mooy buur bi nga xam ne xalaqa bind na laa wax sabaxa samawaati juróom-ñaari asamaan tibaaxan yoo xam ne dañoo tegaloo maa tara doo gis nag fii xalqi rahmaani ci bindab yàlla bii mu bind min tafaawatin ci gulu gala guuse amut gala guuse waaw lakk wolof la <laughs> amut galaguuse de mooy fii xëpp fii gàtt fii dëng asamaan si amul loolu maa taraa doo gis fii xalqi rahmaani ci bindam yàlla bi min tafaawatin ci ëppante amul ëppante yëpp a danaa di wax ne ku teen asamaan si xam ne maçon bi ko tabax mën a tabax maçon bi ko tabax <laughs> moo mën a tabax te amul safo xam nga masoo yi bu ñuy tabax dañuy teg safo pour ñu yëg ci asamaan si ki koy tabax muy yàlla bi muy tabax asamaan moom xamul safo bu mu yëg jalla jalaaluhu azza te ba pare moo waxal boppam ne maa tara fi xalqi rahmaani min tafaawa nee na corde bi ma ko doon defee corde bi dafa xem képp boo nattee dafay xem képp asamaan si bi boo demoon ba ca kaw nga natt sa corde léppay xem képp xamul fenn fuy dëng Abdou Aziz sa xel dafay daj ndax est ce que loolu la xam mu ne far jeel basara man kay nangu naa ko contrôler yàlla nee na contrôler farjeel basara laa wax xoolal nga dalee fii xool xool xool ba fële gisuma benn bën bën nga dëppaat ne dëgg dëgg gisuma yàlla mën a doy xoolaatal loolu mooy farjeel basara waaw aaye bii moo tax mag ñi daan ko ñoom it di ko di ko dàqe cat di ko dàqe cat ak bër bu bët bu bon koo xam ne daf lay xool xool boo xam ne xool ba baaxul waaw nga bëgg na xool ba delloo ci moom xam nga xool xool bi bon ak di catu wuuru ndax am na ñoo boo leen catoo yow yaa cee deexee am na ñoo boo leen xoolee xool bu bon yow yaa ci amee problème léegi sax nga dem ba tuumaal nit nga tuumaal foog ne moom fa am lu am mu wax déedéet loolu la yàlla bind ab yónnent ab wëliyu nit ku baax nga di ko catu wala nga di ko xool xool boo yaa ngi yaa sa bopp te yëgalu ko ba tax mag ñi fii nii farjeel basala ah farjeel basala loolu moom ñoom ndaw xam nañ ko bañ leen koy bàyyee ak càmm yi xanaa buñ paree ku ci <laughs> bëgg xam loo leer rek nga dem wari ko wari këram farjeel basara na dellale sa bët laa wax xam nga ñaan googu ñaan googu ngeen ay jàng ca ca tibb nabawi bisimilah xabsun xaabisun wa xajarun baisun wa sihaabun qaabisun lañ ca teg mooy raddattu xaynal xaa'ini xalayhi wa ala ahabbi naasi ilayhi farjihel basara hal tara min futurin summa arjihel basara karratayni yanqalibu ilayka al basaru qaasi'an wa huwa hasiir ku ko def juróom-ñaari yoon boo xëyee ku la cat wala mu def yu mel noonu ci moom lay delluwaat problème rek waaw fexe rek essayé ko boo xëyee te rek jàng juróom-ñaari yoon man ca tibb nabawi waaw